bu fekkee gan nga ci info SN 221 abonnel nga activé cloche notification bi ngir benn vidéo du la raw kii di Cheikh Hadjibou Soumaré nekkoon fi ab premier ministre ci nguuru kii di maître Abdoulaye Wade ginnaaw bi nga xam ne bii kii di Cheikh Hadjibou Soumaré nag bindoon na ab lettre di ci laajte ak kii di président Macky Sall ndax dafa jox kii di Marine Le Pen lu toll ci juróom-ñaar ci ay milliards mbir mooma nag la mu mujj jural ak kii di Cheikh Hadjibou Soumaré nag mujjul daal di neex benn yoon ginnaaw bi nga ne bii woolu nan kii di Cheikh Hadjibou Soumaré ngir war koo déglu ay waxtu yu yàgg ñuy déglu ki nga xam ne bii mooy Cheikh Hadjibou Soumaré mais daal li nga xam ne bii mooy ab tontoom mooy man daal dëggalu ma weddiwu ma mais daal dafa nekk ab question xam ne bii daal pour ñu tontu ma mais mbir ma nag daf ko mujj jaari jural masiba ndax kii di see Hadjibou Soumaré nag eh, ki nga xam ne bii mooy eh, juge bi eh, di premier cabinet moom a daf koo mujjee def li nga xam ne bii mooy mandat de dépôt maanaam daal daal di koy laq jant bi yóbbu ko fi nga xam ne bii mooy ca Ndungu Siin gi nga xam ne bii nag mooy see Hadjibou Soumaré ñu ngi koy toppee génne ab xibaar boo xamante ni bii daal bu wérul la doon.